salaamaaleykum mbokk internet Hann TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ci wéru koor bi maa ngi tudd Mariam Sy nek nutritionniste bokk ci association bi ñuy wax association de nutrition et d'alimentation du Sénégal tay nak ma fas won woon waxtaan ak yéen euh, ci ben patch bu am solo ci wéru koor bi muy euh, ballonnement constipation ak yenn métitu biir yi nga xam ne yéen nit yi dinañ ko jàmbat bu fekkente ne top ñu diglé yi nga xam mom moom diglé

loolu tamit dina faral di joxe euh, indigestion yi wala di joxe euh, li nga xam ne moom mooy constipation euh, lekk tamit lekk yoo xamante ne nii dafa niin torop yenn saa yi dina faral tamit di joxe constipation wala biir yu metti yi moytu tamit di naan soow bu bëri ndax dafay indi yenn saa yi xerñeent wala dina indi parfois ballonnement di moytu tamit di lekk lekk yoo xamante ne ni du maanaam mburu mburu boo xam ne amul cox bu bari maanaam mooy mburu mooy pain blanc mooy mburu bi nga xamante ne ni moom la ñu faral di jënd ci boulangerie am na ay boulangerie nag yoo xamante ne ni dañuy jaay pain complet donc suñu demee foofu mun nañ euh, tamit am euh, pain complet boobu ndax moom moo gën ci suñu suñu wérgu yaram te pain boobu noonu moom mooy euh, gën ngir mun a moytu ballonnement ak yenn xeetu indigestion yi nga xam ne yenn saa dañ koy faral di di nemmeeku leneen li nga xam tamit mun nañ ko mën nañ ko digal moy di moytu tamit di lekk céréales yo xamanteni ni tamit amul tamit cox bu bari li gëna diglé moy ñuy jënd wala ñuy lekk céréales yo xamné manam maanaam yi nga xamné amna am ndax cox bobu dina permettre ñi mëna tamit digérer digérer bu baax. li nga xamné mom lañuy la digal askan wi euh, diko def ngir ñuy moytu euh, yenn xétu constipation yi wala jafé euh, jafé yi nga xamné mom moy indi ay métitu biir wala euh, wala ballonnement bokk na ci ñuy naan ndox bu doy naam un litre cinquante ci diganté ndogu euh, xëdd bi ndogu bi ak euh, ak reer bi donc ñuy conseiller nit yi ñuy naan ndox ndox ndax ndox lu am solo la 1 litre 50 mën nañ ko naan ba 2 litres baxna na leneen li nga xamanteni tamit ñu koy conseiller mooy ñuy lek ñam yo xamanteni ne ni dafay am fibre maanaam dafay mel ni comme ni mu ko mën a tuddee mooy caas ci biir euh, lekk yi donc loolu dafay permettre nit ki di mën a digere bu baax nit ki di mën a am euh, li nga xamante ne nii na tax ba du am ay problème ballonnement du am problème métitu biir donc loolu ñu ngi koy nag en général ñu ngi koy faral di gis ci euh, lekk yi nga xam ne mooy ni demee ni ki fruit comme mango xaal ak yenen fruits yi yooyu tamit amna ak ak tàndarma tamit yoy amna ay fibres waye tamit ni ngi faral di retrouver fibres yoy ci yenn légumes yi légumes yi en général presque yëpp yëpp am ay fibres donc yoy tamit ñu ngi koy faral di ñu ngi koy en tout cas conseiller nit yi ñuy lek fruits yi ak légumes yi ci tank lii lañ leen indiloon ci li nga xamante ni moom lañu ñu mën a def ba moytu am constipation wala biir yi metti wala ballonnement wala sax indigestion ci biir weeru koor bi maa ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen incha allah